Right But Touba euh, ci kër bu mag bi nga xam ne ñooy tey seen Mbàkke Madina nga xam ne ñooy seen Mbàkke Madina tey nag mooy suñu premier plateau bi nga xam ne waxtaan ñu koy defee nga xam ne ko waxee mooy que boo ñëwee Touba ana nga war a doxee boo ñëwee Touba lan nga war a ki nga xam ne suñu invité bi

macha allah defar ba mu li nga xam ne nii moom la dëkk bi laaj méngoo nañu ak moom nit euh, mi daal di gis nga ko mi daal di gis seen seen rek ndax euh, dëkk beeku laaj bi euh, may nga xam ne nii mooy te techniciens yi ñi nga xam ne réalisateur yi ci mel ni Youssou ak Serigne Saliou ñu réalisateur ak Youssou waaye aussi di nuyu ki nga xam ne mooy suma ñaari caméraman yi muy Serigne Saliou ak nga xam ne mooy Assane bu ko defee dañu leen di jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax ndax ki nga xam ne nii moom mooy euh, moom mooy euh, Serigne Sall moo ne suma suma suma ndey joor waaye damay nuyu soxna Kumba balaa may dem ci kenn mooy ndey Fatou soxna Kumba maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum mbokki téléspectateur bi euh, maa ngi am kontaan di bokk ak plateau lu ci mel ni Dj Binguel ak suñu invité bi nii ak Ndeye Fatou. tey nag ñu ngi fii ci biir Touba comme ni ko waxee suñu émission bi nga xamante ne nii muy xibaar 221 TV fii lay xewee waaw. ayca mu ngi noonu ñu ànd ceeg euh, ñaar ñaari ñaari ñaari ñaari kii la ñaari kay ñaari chaîne ñoo mooy Max TV ak euh, xibaar 221. ku moo dinañ dellusiwaat ci yow ndax yow dinañ indi benn thème boo xam ne dinañ ci waxtaan ndax li nga xam ne nii moom moo war aaju ci màggal gi. nga xam ne jigéen ñi nga xam ne ñëw ak góor ñi naka lañ war a comporté waaye bu ko defee balaa ñuy balaa may dugg ci yow damay nuyu sunu journaliste bi nga xam ne mooy ku ñaaw ku bëgg a lekk bi am nga tàmm ngeen ñëw moom ci suñu keppaar suba si ndax am meññeen ak am meññeen moom moom moom mooy loolu mhm. soxna Ndeye Fatou maa ngi nuyu tamit suñu invité bi waa Thiel ngi ak képp koo ne li ñuy wax xibaar leer nañu fii nga ko mën a amee te la koy mën a jox moom mooy soxna Ndeye Ba suñu journaliste boobu. nangoo liggéey ngi lay ñaan bu mooy nekk lépp donc moom mooy mooy catam waaye bokk na ci li nga xam ne moom mooy mooy jigéen ngeen dégg naa bëgg lekk doo ko joxe kon ñu ñëw ñëw léegi léegi ci actualité bu ko defee ñu bàyyi suñu invité El Hadj Seck mu daal di ñëw téléspectateur Touba 221 a wut koy saraxal ci biir kàddu yi rek su ko defee jazaaka yaa xillu Ibrahima Mawlaaka خير الجزاء ومنى داريك أولاك جزاك يا قل إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنى داريك أولاك فهلم بأنك إندي سوردا أبدا وساكرتك في دنيا وأخراك فدم على شقي wal ixlaasi mujtahidan fii sirri wal jëri kay tan mooma sa yaaka yow na doxo lu na si diina ni yaakaar ju dul tas da yaakaar ku yaakaaru borom Tuubaa lam fi yaakaar moo fi yaakaaru yaakaar ju dul tas da yaakaaru ku yaakaaru maami sëriñ Mbàkke Madina fi yaakaaru wa yow ma bis ba nu naan yowmal xiyaami ndaxam misaal mi feeñ na ci duniyaa kenn du muxtaaru moom képp mooy ki si lislaam te ji jamono nootal na lislaam nga doon bañ moo di xëxëru ñun ñëpp santanu war juddu giñ ci juddu maam yaag suñuy baay dañoo fekkoon yaakaaru deret na tuurul dammul nit alkewul du mbiram kënam ga mooy xalimaam moo dàq fu jaaru aarifiya xam nañ ne doo seen nawle fépp fu ñu jëm yamal xiyaam bañ la seeni ñëpp farwaaru waykat ya daa way nabi say waya tax ñu nga dem bisu keroog say bayit ñooy jolli takkaraaru Seex Bamba mooy ki si lislaam ci ji jamono nootal moom rekk mooy ki siggil lislaam ci ji jamono nootal na lislaam ña doon bañ moo di xëxëru nun ñëpp santanu war ngir juddu giñ ci juddu maam yaak suñuy baay dañoo fekkoon ñu yaakaaru deret la tuurul dammul nit alkewul du mbiram kënoom ga xalimaam moo dàq fu jaaru aarifiya xam nañ ne doo seen nawle feeg fa nu jëm yomal xiyaam bañ la séenee ñëpp a farwaaru waykat ya daa way nabi say waya tax ñu wedam bisub keroog say bëyit ñooy jolli takkaraaru aljanna say xasidaa fay mbégte moom la jigéen ña da jaloo di sikkar bul weddi bàkkaaru keroog laril waan tijjil seex bamba aljana ya maliku tëj mboole seen wuntam ya dinaaru lam wax la kenn mus wax lam jëf la kenn jëful lam wax la kenn mus wax lam jëf la kenn jëful kon moo yeyoo am lu deeful am faja baaru lislaam ji moo ko fi yeesal ñëpp a ngi julli tey delloo ko njukkal war ngir moo di jàmbaaru al yawma akmaltu lakum diine wala waxal ngir yaa fi feddali diine yi léegi xaraaru nasir nga boole xaddiir buur la ko may amoo morom noon yi xam nañ yaa di xëxëru óot yamaamata xàndax xaybar ak bëdërin seen fay ga yow ko jox ngay fay ko jàmbaaru sunu njaboot ak nu nag waajur ya ak lu nu am def nañ ko diye ngir yéen rek a jàmbaaru billaahi والله لولا سكا سيخو نغام خم تلفني جم كراب غير ميريو داي وارو الحمد لله رب العالمين نخم كون ووتي موم بيس با فيخل ام غران وارو موم كيب موي كفي جو قران اك جوار سي بيند اك جانغ اك ساكال كو اي دارو امامنا موي امام العارفين بالله والقرب والقوس والاغيار اغيارو mahroof Jailani, wal busamu tayfor sumal xasaaliyu yaay birma doy waru ay wufi am Ya ko fay Makka Madina fumu jomal jommal sërif ya, demal laaj lu ganaru mangi ngi taxawlu di ñaan buur yalla am ngërëmam noong boole sun kuy julit dunya wa ukhra est-ce est-ce loolu mooy nuyoo bi doon nuyoo bi nga xam ne téléspectateur Xibaar 221 nee naa leen ni fii Touba ci euh, ki nga xam ne ni mooy Kër Sëñ euh, moom dina nuyoo dinañ daal di dikkaat ak moom ci li nga xam ne moom mooy ak moom ci li nga xam ne mooy waajtaayu màggal bi ak li xarit bi yëpp waaye ba léegi boobu xam ne moom mooy Ndeye faatu mu daal di ñu dugal ci li nga xam ne actualité ñu daal di si ak alaaj incha allah. voilà Binguel comme niñ ko waxee rek dañuy daal di xuus dugg ci actualité yi comme ni ko journal yu bëri xëyee bi nga ne ni ki tey muy affaire u assemblée nationale bi nga xamante ni démb ñu ngi doon fal ki nga xamante ni mooy seen président bu yees ñu mujjee koo tabu nag ki nga xamante ni mooy Mamadou euh, Mame Diop moom lañ mujjee tabu président assemblée mu nekk loo xamante nag lu jiixi jaaxal la waaye tamit nekk loo xamante ni lu ñu xaarul woon la peut-être ci waa Benno Bokk Yaakaar waaye assemblée yi tamit coow la des fa ki nga xamante ni mooy Mimi Touré moom dafa daal di gedd li nga xamante ni mooy vote yi mujjeewul vote parce que moom dafa yaakaaroon ni moom mooy ki ñuy tabu ngir mu jiite assemblée nationale mm-hmm. naka noonu itamit wutu xool PDS ñi nga xamante ni ñooy waaye Yewwi Askan Wi côté opposition ñoom dañu boycotté carrément vote yi ndax nee ñi nga xamante ñooy ministre yi ba pare nekk député ñoom amuñu waruñoo woon a voté ngir ku ñuy tàbb yees président assemblée nationale mm-hmm. ndax tànk ñu ngeek seen ndombal tànk euh, euh, voilà ministre mm-hmm. waruñu am ndombal tànk itamit ci assemblée soit dañuy démissionné seen poste ministériel mm-hmm. wala soit ñu daal di euh, euh, démissionné ci côté assemblée nationale waaye waruñu mën a boole ñaax parce que li nga xamante ni mooy doyen assemblée nationale permettre leen ko. Mhm. waaye tamit gis nañ ki nga xamante ni mooy Barthélemy Diaz mhm. am ku doon wax mu jóg daal di nangu micro bi mu xeet yoo xamante ni. ba ci Guy Marius Sagna vote bi mujjee gi pour ñu amal ko ba vingt heures ñu ngi assemblée pour ñu amal ko dañu mujjee woo gendarmerie nationale ngir assister ko journal yëpp xëy wax ni que député yi vraiment dañoo teg euh, gàcce askanu Sénégal parce que defaru ren dañu jàppoon ni que ren am rupture ñoo mm. xamante ni ñu ko doon gis ren au moins dinañ am ay député yoo xamante ni dinañ ñëw wane exemple bu baax mais d'après li ñu gis ni ki démb bu nekk loo xamante ni looy xel la lu dal xel la assemblée mel ay xale yu ndaw ñoo fa nekk pëccoxoo gi xëccoo gi xeexante géeg ci biir assemblée bi loolu daal yéenekaay yu bëri ci tënk daal ñooñu ñëpp xëy biral tey ni ki euh, voilà euh, talaata gi ñu wax ni daal assemblée daal d'après li ñu gisagum de rupture et puis dalul xelu sénégalais yi mm-hmm. acca mu ngi noonu comme ni ñu koy waxee saa su nekk rek politique euh, yaakaar naa ni euh, li li xew assemblée dafay mel ni day gën a yokk waaye du wàññeeku ndax euh, image yi gis kenn ku nekk daanaka démb bu léegi réseaux sociaux yeeg ñi nga xam ne ni moom mooy ñëpp ci la ñuy waxtaan xale yu ndaw sax moom la ñuy yi ndax gis loo xam ne ni suñu ko gis waaye nag suñu Sénégal moom nañu xam ne rek ñu ngi wax sax nañu xam ne askan bi ñoom ñoo leen yóbbu fi nga xam ne mooy assemblée nañu liggéey ngir ensemble nañu liggéey ngir ngir ngir euh, li nga xam ne mooy euh, askan bi moo gën a toogal seen bopp. parce que am na yenn image yoo xam ne man pour man Ndeye Fatou euh, kilifa waru koo doxalee ndax boo gisee yenn image yi ñuy tël seen chaise yi war a toog ñu jël teg seen i tànk fi ñu war a wéeru ñu jël fi ñu toog fa loolu nekk loo xam ne ay exemple la. waaw yëpp loolu yëpp ñu koy gis euh, te mu dem moo nekkoon seen ouverture nekk premier jour mm. mais ñu ñëw teg gàcce carrément sénégalais vraiment li taxoon ñu fal leen daal mm. démb gis ñu ko ci ñoom ñu daal Sénégal xamul ban Sénégal lañ nekk waaw xam naa loolu moom euh, euh, alaaji dinañ ci lu ci alxuraan li nga xam ne ni moom la moom la moom la ci jàng mm. ci diine wax waaye daal soxna Ndeye Fatou assemblée nationale moom yaakaar naa du changé mm-hmm. parce que exemple la ñu war doon ci li nga xam ne parce que ñoom askan bi dañu war a jàng ci ñoom mm-hmm. dañu war a jàng ci ñoom mooy lan lañu war a jàng ci ñoom euh, tey jii bu demee toogal leen di xeexal lépp loo xam ne askan bi soxla ñoom ñoo ko war a euh, présider euh, bu ko defee ñi nga xam ne ni ñoom ñooy njiit yi ñu xam ne lii askan bi soxla boo ñu jaar jàpp waaye bu ñu wanee yenn exemple yoo xam ne dafa vulgaire wala négatif sincèrement parlé wax dëgg yàlla xaaruñu xaaruñu woon si ñoom loolu mhm, ñu noonu ñu ngi lay remercier bu baax ci li nga xam ne nii moom mooy actualité bi dinañ dikkaat ak yow léegi ci waxtaan bi bu ko defee dañuy dalal ki nga xam ne nii ah, balay loolu nag euh, xam nga euh, bu ñu waxee Touba rek wax xéewal bu ñu waxte euh, aussi mu tombeek li nga xam ne moom mooy matinal bi mm-hmm. ñi ñëw fii ci Touba te nee naa leen kër sëñ bi xéew ay xéewal rek moo fi moo fi moo fi bëri da ngeen gis daal léegi ci plateau bi ñi nga xam ne jàpp nañ ci li nga xam ne tey ci mooy mooy décoration li nga xam mooy émission bi mooy ñi nga xam taalibe yi nga xam ñoom ñoo géré kër sëñ bi sëñ Ousmane sëñ Ismaïla Jamil moom moom moo géré li nga xam ne wàllu kafe yi feggoo ci nag ak yi ndax alaaji moo nekk ci plateau bi waaye ñoom ñaar ñoo feggoo li nga xam ne mooy affaire kafe yeeg xéewal yi moom nag mu ne day day da leen di indil lay faatu yow xam nga da ngaa lekk mu da leen di yoo xam ne nii euh, dañu ko daal def ci matinal bi xam nga ko wax ni kii rek day wax café daal di ak ak ay ay ay yaakaar naa ne faatu di nga gaañu waaye Youssou mi ne ci ginnaaw ak ki nga xam ne moom mooy <laughs> maam Thierno ak sëñ ak sëñ Fallou ñoom dañuy xam naa ñu ngi taxantiku ngir daa xam ne kon ndax li ne ci mën nga toog nga toog mën nga toog mën nga waaw mën nga toog wàccal tournel tournel tournel nii voilà xëy leen ñu xéewali café yi moom suba teel gi café gi dama koy dama koy njëkkante gars yi xam nga murit mom murit moom murit café waaye nag damay jox sama sëriñ parce que alaaji mooy sama sëriñ mom mooy suñu jëwrin ma koy jox mu xéewal waaw macha allah mu ngi noonu mu léegi daal ndey faatu yow moom lu ma la jox si nga wax lekk trop ok ñu ngi lay jaay bu baax kéwali nga kéwali nga ñu baaxee nii ci ay beñi macha allah ñu ngi lay remercier bu baax jëwrin gis nañu xéewal yi gis nañu teraanga ji teraanga du ndaw ndax euh, murit moom ab murit boo ko indilee café Touba suba teel kooku lay doon da ciy bég ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax a baax hmm. voilà mu ngi noonu su ko defee mbokk téléspectateurs yi ñu ngi fii ci kër sëñ Abdourahmane Mbacke doomu sëñ Mbacke Madina ci euh, keppaaru suba si ngeen ànd ci xibaar 221 waxoon naa leen nee euh, xibaar 221 dina ñëw fii Touba su ñëwee Touba nag li ñu indi Touba bokk na ci ay information yoo xam ne war nañ koo xam parce que am na ay mbokku taalibe yoo xam ne ñii dañ ñëw Touba waaye duñ xam lan moo waral lan moo tax ñu ñëw Touba ak lan mooy waree fu màggal loolu nag dañ ci bëgg a jàkkaarloo ki nga xam ne mooy suñu suñu suñu suñu jëwriñ euh, di suñu sëriñ di suñu lépp macha allah ji Seck di euh, dégg ngeen ko fi mu nuyoo lim nuyoo rek daa firnde lu bëri euh, wàccal na leen ci macha allah neex lool sax moom kii mais nuyoo rek dañ koy bàyyi daal di ne di ana lan moy wareef nga xam moy magal lan mo lan mo tax ñi ñew di magal ak ñi nga xam ne dañuy magal si mhm. bu ñewé nak lañ wara a comporté wu jërëjëf jërëjëf seexul xadim seexul khadim am morom cheikh abdulaat ma fa melne ñaari yëf rek mo am mhm. xana geneen wet gi la gëna mané waye dina dinaa ci wet gi tuti mhm. xamna sax léegi bi sëñ Ismaïla di leen di sama xale ngi waaw Ismaïla ngoon gi hmm. waaye ñu tàngal def ci palaat bu set ku nekk du xool naa waaja xelil ma mos xam <laughs> ne bu jàmbaar ja indee kaas ya fuurit ma jëm ca kaw ka koy jot fu mu toll xel yëpp a koy xalam ku jot ci sa kaas boo nee furoox def ko ñaari yoon sëbët yi di bas sa dënn tàng nga dellu ñam ne waaye bu ñetteel ba jàllee nag da ngay tongal beñam mu jëm gémmiñ mm-hmm. nga sajj ko dóor koy sell nag guuxaat warax mu dem ne àjjana bu làqu lii daal ku wax neex ga ne ko xam mm-hmm. te nag bis la boo xam ne maa mm-hmm. ñu jëm ci bis boo xam ne dafa am ku liggéey yi woon waaw njaboot gi toog leen liggéey yi nag ku dem ci tool yi dana ko def ku dem ci àll ba rëbb bi dana ko def ku dem ci palaasam ñaw yi mbaa ka dem yatti comme ci mën a doon daal daa xëye ci kër gi na njaboot gi toog leen ma dem wuti te ñëw ah daa wuti nag bi mu wutee ñëw léegi ñu war koo aña nag moo tudd baatu màggal màggal waaw mag ñi sax doon nañ ci di ko wax tëbaskiwaat waaw waaw tëbaskiwaat ndax xam nga da ci am ñoo xam dañoo fànnaaw waaw mooy li daloon sëñ Mbay Saar mooy ci mag ñi am na ci ñoo xam ne maj suub lañ ku ñu wammat du xam fu ñuy jaar xam fu ñuy euh, gumba su jëlee tumam jox ko ak gone mu koy wammat léegi gone gi moo naan ko teggil sa tànk tegal mm-hmm. wàcce ko ndànk mm-hmm. jaaral fii jaaral fii mm-hmm. waaye moom daa joxe tumam rek du xam fu muy jaar waaw kay léegi loolu nag daloon na lenn ci mag ñi bañ ne ñoom sax far Seydina Ibrahima defalu leen dara gannaaw suñ tubaa leen defal kon seen menn xar mi ñu am dañ ko duñ ko rey ci tabaski dañuy bàyyi ba màgg ah, sëriñ bee dindi loola mo deg kenn ci mag ñu ne waaw Mbacke sa tabaski wat gi ñu koy wacc mu ne mm, ana ko wax lolu dan ne nañ ma wol isa Diagne dan ne nañ ma wol Abdou Karim dan ne bu ko kenn tuddee tabaski wat nañ ko wax magal baatu magal ci mom la ñëkke wa comme bis mom lañu magal, magal ci mom la ñëkke wa legi ni ñi magalé nak xamna bu fekkente ni ne man sa ko tegtale ci ay beuy bu non ngeen ko bëggee Oke, na mas jar ko jaar tam ci waxtaan waaye ñaar yu ne man bu ci ne man na nek waaw kay yem na ko ngir magalam gi doon safar di defar waa ndax weer safar la moy mhm. digu tabaski yem na ko ngir magalam gi doon safar di defar mbooloo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi lu doon moy lu bari màggal gii nag moo ko daa def lim ci digle de mooy ñu jaamu yàlla ci sunna sun ndigal laa ngi yu ngi ci xew nit di ko def waaye bu génnee sunna bokkatul moom na dafa wax ne tax si bi bi ti nañ ko dundal ci sunna sëriñ bi nag moom ci boppam daana toggi ñamam tàngal kafem di béggal mbooloo mi yoon waa ngi sëriñ bi déele na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 loo bëgg a gis saw naqar jeex ngóor gu rëy gaa ngi téewul mu wax ne bu waxtu màggalam gii di ñëw danañ ko yàkkaw li koo koy séentu noos gaa ndax àjjana dañoo wax ne altine talaata àllarba yooyu amu fa ndax bis neex gi ak guddi gi kenn ko ku nekk jant bi ko gis ni nga bëgg sa rek bisu mel ci lay mel mm. kon bis amu fa waaye moo wax ne nag bisam bi bu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 am na jaay yu wér dëggal yoo xam ne donte dañuy dox ñëw ñu ñëw ñaa ngi sëñ Babacar tam am na lum nu waxoon ndoorteel jumaa ji lu yéemoo yéemu way yaa ngi ne li dee fi am ci jumaa ji jar na xëy na rajax sa bopp toj ngir liggéeyal Bàmba waar gaa ngi jumaa ji nag jëmm jeey mat waaye col gi du mat ndax bubb sax dañu koy fóot yeesalam gaa ngi jumaa ji nag léegi bi mu yegge ndigal li fi maggal magal gi rek fi sës magal gu mag juma ngi jumaa ji nag léegi bi mu yegge ndigal li fi dess magal gi rek fi magal gu mag magal gi nak dafa lambo dekk beeg li wër ak fu julli carte ne yaatalam gangi Europe asi amerique Afrique fu ni manane ne nay jàngal ak hadith ndigal laa ngi Bamba nak fab xasaayit yëpp puda di xagn adi si ak tere bi yombal le mbir maangi ngi mhm. jëlal xasaayit mhm. yow lo man durus da nga am ya ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafe lol ah. lay wax ki man alquran mhm. nay boole ñaar yaangi yi yii nak ben bo man rek rek la wax ku alquran faat si kariyet faat ko dab gaangi magal bi ngay dabe mboolem yool ba gaaya amoon tam la yow mii nga doon dab jiitu muur maa ngi kon nag ku am yool màggal gi lu mat at ëtt ba sëñ bamba ne ngay ne lu neex laa ngi jataayu sëñ bamba bee muy ne akub yeneenam ku bëgg a teew na nga teew màggal si njëg laa ngi ku la teew na nga jël si lëf te def ca ba tey bu yéene sellee nga feeñal yi loo def ci màggal bi sëñ Bamba ñu gis ta doxeeb loo yéene it dana xam bul wax lu néew laa ngi danaar ba jàpp gëléem dërëm ba ci milliard loo ma defal loo mënul yéeneel déwén jaa ngi nun ñii nag gaa yi dëkk ak Serigne ci biir dëkk bi lansaar ya buñ nu yóbbul lenn muñ gaa ngi lansaar yi mooy nun ñi am fii kër tagaa ngi di ñëw ba wax na lu wér ci gan addi baa ngi man kaana kon gan ñi na leen di taral ndax yeneen ba lii leen wax ah. toppal ndigal laa ngi mm-hmm. nan wàcc sun lal yi mm-hmm. jox leen mm-hmm. toog gi ñam joxe xiif di kaf di ree belli moo gën bernde mbég mm. maa ngi mm. xam nga boo boo joxee gan gi mm. teraanga te belliwoo du tax mu mën koo jëfandikoo waaw béy ah, nag moo gën bernde bernde gi lu mu yaatu yaatu kanam gi wanewu ko mm-hmm. du ko jëfandikoo moo tax mu ne belli moo gën bernde mbég maa ngi ndax waykat ba nee na lu gan gi maanu maanu du tee mm-hmm. buy dem dina waa ngi mm-hmm. nëbb sa jikko te jikko yiw te nëbb sa mer bu mar te mer te it maare yoon waa ngi ne sagan bu yegsee mm. ne moom daa sonn mm. na ko wutal fu yaatu mu soonu fa yow fi xel ko ndam laa mm. gan dee ko jox soow te bu koy soow te bul ñagasal sa kanam kon bu delloo naw la mbig maa ngi te bul jëkkanteeg sagan gi sangu baak sukk ba kan man li di xaaraan buy lekk it bu ko di jëmm yooyu xamu leen bu dee borom kersa hmm. day ru suur lor jaa ngi bul gëddee hmm. bul xaste bul dóor doonte day gone sax hmm. ci teewu gan gi dafay yoqat lu ñaaw laa ngi ndax gan bu ñëwee gan gone def lu wërta def ci kër gi gëne bu gan gi da ak tu tànk tu wala di siit ndax ñi jaar école wala daara. gis nañ ne tey. bu benn gone dafee njombe. buñ koy duma. ñu ci wetam dañ ti. ñoom lañ jëm si. moo boo dóoree gan rek. dèjà gan gi bu àndee gone gone ga daa tàmbali naa yokk. day jàpp ne fii nga fii moom. waaw kay moo tax mu ne kon donte bu ne defee dara sax bu ko dara ci kanamu mu ne bul gëdd boo xasse bul dóor dont day gone sax ci teewu gan ndax dafay yokkat lu ñaawaa ngi sëriñ bi baaxe la kër gu yaatu ne fayax mu am ganam ñi bu leen mer loo lu sew laa ngi sàggan nag ba sa gan déwén buy del siwaat du xalaat dalaat sa kër da ne Touba eh. lu ñaaw laa ngi waaw yow gan gi nag voilà bu nekk gan voilà léegi lu foofu laa bëggoon laaj Euh, xam nga li nga li nga xam ne moom bu yóbbu màggal gi ñii ñëw euh, maanaam ñi fekk si ñoom nga waxal waaye ñi nga xam ne aussi dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy màggal ana ñoom lan mooy seen taxawaay waaw. jërëjëf li nga xam ne nii moom lay wax lépp taalif maanaam da daal di koy def genre wéy mooy taalif léegi mais ñi nga xam ne ana ba. waaw kay xam nga ca kanam dana indi ku nekk li ko war. Hmm. moo tax wax na kii teeru li ko war ba noppi mu bëgg ñëw ca kañ teeru nag mu ne yow gan gi bul nekk gangal nit ku def la mu man ba jeex ca takk nga koy ñaan paas lu soof laa ngi sëriñ bi fàggu na laajul kenn lu mu am lu waaye di jox nit na doon lu man ndigal laa ngi ku dal ci kër gu ne war naa fonk kër ga mu dal ndax picc sax car muy dal naw ko roy gaa ngi liggéey bu jotee mhm. dangay ngay ànd ak ñoom liggéey la nga man mhm. sa wër sa git bu ko waatal kër ga xel maa ngi waaye saaboo sangoo mhm. génn luy say poos mu fees nga ne fees boo dee si waatee di rajoleer xel gaa ngi siyaare war na la kenn néewul bu leen ko defit waaye ndagam da ngay joxe nag da ngay waat ko soo gaa ngi kii teeru daal am na lu ko waar kañ teeroot am lu ko war wàcc war war yi def na si njombe waar gaa ngi kon ñëwal te sëñ bi di tax hmm. waaye yow it teerul te sëñ bi di tax ndax ñaari tax yi hmm. bu ci toj sooxe ñaax gaa ngi ñëpp yàlla nañu am màggal te dëkk amiin amiin amiin béeg nu macha allah kooku mooy alaaji Seck macha allah eh, ñu dégg waxtaan bi am na solo lool alaaji yaakaar naa ne li nga xam ne moo doon question bi da ko taalif ci eh, question réponse eh, li nga xam ne ñoom ñoo fi nekk am na loo wax si ñoom yaakaar naa dégg nañ ko waaye ñi nga xam ne aussi tamit dañoo doon ay taalibe jógee fu ne ñëw Touba yaakaar naa war a ñu dégg li nga xam mooy message bi nga wax te noonu la war a demee ndax màggal boo ñëwee dafa am noo war a taxawee waaye tamit yow mi ñu fekk tamit dafa am taxawaay boo xamee nii moom nga war a taxawee ndax bu ëllëgee ki nga xam ne moo ñëw bu ëllëgee kon yaakaar naa information bi jàll na xam naa du duñ la teelu bëri ndax yow macha allah gaa yaa ngi lay signalé sànq ba léegi pour nga dem ci liggéey bi ndax li nga xam def la war ci bis bi dafa lool xanaa ñu lay bàyyi nga joxe si dernier kàddu rek waaye bëggoon nañ xam ki nga xam ne nii moom mooy sëñ Mbacke Madina di di bàyyi ki nga xam ne moom mooy sëñ Abdourahmane Mbacke suñu sëriñ euh, maa ngi ziar sama sama sama sama jëwriñ aas ndax bi ñëwee ci guddi yëpp vraiment euh, taxawaay bi gis nañ ko mu jàpp ci li nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy mooy teewlu gi mu teere sama moom trop waaye li ñu a xam tuuti rek nga wax ko ci mbàkk Mbacke Madina nga wax ñu ko sëñ Mbacke Madina ak sëñ Abdourahmane Mbacke tuuti rek taalibe yi xam aussi li nga xam ne moom mooy euh, ñaar ñooñu noonu muy bàyyi ak doom jooju. waaw damaa waxoon ne arfan bi arfin benn laata yow mii. Mm. xam nga Seexul Xadiim moom xam nañ ko ba noppi. Mm. daanaka jëratul wax leneen. Mm. maanaam sëñ Mbàkke Madina Seexul Xadiim mii arfan bi arfin. Ah, benn lañ benn laata yow mii. waaw waaw léegi nag. Mm-hmm. Serigne Touba. waaw ku ne xam na ne. suñ bay jaxate nee na kër goo fi gis mu jub kilifa gaa jub ñu ne ko lu tax mu ne ngir picc sax ne sabinu baay ba lay sab kon Abdourahmane bu fekkee ne yàlla dimbali na ko na sëñ Mbàkke may di doon sabe rek lay sabe lay sabe léegi nag mhm. yàlla da koo sédd ci moom mhm. Seexul Xaddim ñaari cër moo tax moo waxoon ne mhm. Seexul Xaddim Seex Moustapha sëñ Mbàkke lii wàllu baay ci Seexi Abdourahmane Seexul Xaddim sëñ Fallu soxna maam Buso léegi wàllu nday ci Cheikh Abdourahmane daal mm. di taxawlu naa fii nag Cheikh Abdourahmane eh. te ñaan nga yàgg a woote Daaru Rahmane yàgg nañ faa daje dëgg la yàgg na xam naa ma xam rek a ko meññ la ci wet yëpp ndax suñ Moussa suñ Touba mm. waaye suñ Fallou suñ Touba suñ Fallou jur soxna maam bu sa mu jur ko sëñ Moussa jur sëñ mu sëñ Mbàkke Madina mu jur ko mm. mm-hmm. kon moom nii mu mel rek la war a mel xam naa dinaa ci gën yaatal mm-hmm. waaye gannaaw suñ Sall gi may signalé xam naa suma ma camee ndigal damay rocceeku rek. waaw xam eh, yoon uh-huh. jeexul. waaxu si si lu jeex. jeexul mooy ki nga xam uh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne nii uh, moom mooy wuy si gi mu ñu wuy si. ndax uh, am na njëriñ waaye xam naa dina dellusiwaat nag ci plateau bi ndax moom li ñu war a waxtaanee moom daa bëri waaye ci nga xam ne suba gi dafa bëri li nga xam ne nii moom la war a moom la war a def. ci suba gi loolu moo tax ñu njëtt ko waaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci disponibilité bi xanaa dañ lay bàyyi rek nga daal di yeewi la nga daal di dem ci li nga xam ne mooy liggéey bi bu ko ki nga xam ne nii moom moo ñu euh, nekk euh, Max TV suñu xarit suñu frère mu ñëw recevoir ñi li nga xam ne moom mooy euh, mooy plateau bi voilà donc mm-hmm. voilà c'est bon alaaji kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di remercier ci li nga xam ne nii moom mooy teew bi nga ñëw teew bokk li nga xam ni moom mooy plateau bi yi Seck ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal képp koo xam ne nii euh, yaa ngi euh, liggéey bi euh, sama caméraman yi sama technicien yi macha allah sonn trop mais nag loolu la loolu moo ñu fi indi képp koo xam ne nii rek ñëw nga fi sonn soo ñibbi doo ko rëccu waaye nag lu Serigne Touba moo ko waxoon Serigne Touba coono bi mu daj daf ne mm-hmm. li nga xam ne nii moom la ma moom lañ ma teg lépp mënoon naa fayantoo waaye nag dama koy sante suñu borom ndax nangu na li nga xam ne ni moom mooy ndogal ndogal nag boo ko nangoo rek daal di am ay xéwal yu bëree bëri son Ndeye Fatou son Kumba bu ko defee suñu suñu suñu frère euh, muy euh, suñu naataango nekk euh, Seydina voilà Seydina mon frère ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu téléspectateurs yu xibaar cent 221 ak téléspectateur u Max TV yi voilà Salam les téléspectateurs du xibaar 221. Maxis TV aussi en collaboration ñu ngi am mbégte ak contentement. nous bi ñu sant de jënd ci yonent bi. sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul mhm. tey nag dañoo ñëw ci màggal gi mm-hmm. màggal gi nekk loo xam ne Serigne Touba moom moo ko woote moo ko woote te képp kuy jullit rek mm-hmm. danga ci war a wuy ji mm-hmm. ndax daf ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la rek euh, da ngaa war a ñëw wuy ji ma fii sant la ma suñu borom suñu borom maa ngi siyaaraat ñëpp di la siyaar di di bége bu baax a baax euh, ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi mbengeen bi nga xam ne sànq <laughs> yëf yi mu ci def maa ngi siyaar bu baax jëwriñ ma ngi lay bu baax waaw merci beaucoup euh, Seydina ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne nii euh, mooy bokk plateau bi ñu bokk ndax comme nee nañ euh, ñu bokk ay euh, ñu bokk teen ñooy lax sooy goj bu ñëwee Touba nag li sëñ bi digle rek mooy yaatal yaatal googu nag moo waral tey ñu lëkkaloo ñaari chaînes yi fas yéene liggéey waaw ñu waaw bu ko defee ñu daal di ànd liggéey li nga xam ne nii moom moom moo ñu fi indi ñun ñëpp lëkkaloo liggéey pour wane li nga xam ne ni moom moo am fii ci Touba. mooy mhm. ci côté euh, liggéey ak ci côté comportement tout ça lu waxtaan nañ ci ak ki nga xam ne mooy Alaay Seck léegi euh, am na lu mu ñu am na mu ci wax kon kenn ku ci nekk li nga xam ne moom moo la war rek euh, boo ñëwee nañ ko def waaye aussi nga xam ne ñoom lañu fekk tamit war leen war nañ ko def su ko defee dañuy daal dem résident dikkaat continuer li nga xam ne ni moom mooy débat bi voilà merci téléspectateur xibaar 221 ak li nga xam mooy Max TV ginnaaw bi ñu demee résident dikkaat Seydina ñu ngi lay ziar bu baax ginnaaw bi nga présenté woo bu ko defee dañuy daal di ñëw ci ki nga xam ne mooy suma jigéen moom nee naa la saa su ne ñoom ñoo may wéttali ci li nga xam ne ni moom mooy keppaaru suba si waaye nag dafa spécial tey ginnaaw bi ñëw fi nga xam mooy Touba ñu bàyyi rek nga wax ñu lan nga ban thème nga ñu indil euh, ci li nga xam ne ni moom mooy keppaaru suba si tey fii ci Touba soxna Kumba waa Binguel eh, tay ki bi mu tem bi ma len indil. manam hmm. eh, ci magal gi la. Hmm. ndax eh, ñu bëré xalé jigeen ñu bëré sanse réré magal hmm. magal pour ñoo magal euh sañté motax ñi wax magal ta alors euh sañté waralul magal borom bis bi. dafa ñew ni nañ leen ma sante leen suñu borom. kon yaakaar naa warul nit ñi nga xamne seeni dañuy def seeni valise ñaari valise. ko kep ko gis rek da nga nan day préparer wu. di pour ay sañseem pour sañse ne mm. pour moom euh, màggal gi sañse la mm. te alors que sëñ bi dafa wax ne màggal gi mm. pour ñu jàppale ko pour cantale ko cantale ko da nga war a ñëw pour man yow yow mi nga xam ne si da nga fekk si ñi nga ñi nga fekk si euh, dalal war ngaa ko ñëw jàpp ci liggéey bi mm-hmm. euh, ba nga xam ne si ni su ko defee barke bi nga ciy am macha allah suñu borom dina ci taxaw bu baax a baax a baax waxuñu nag nga ñëw fi di solu simi solu simi mel ni comme si yow da ngay jaayu Hmm. loolu sëñ bi euh, naat euh, euh, kiiwu ko daal santaane wu ko hmm. dañoo ñëw pour fii nii war a doon soxna jaara hmm. nga xam ne sii ni macha allah moom sax na jaara moom roykaay la ndax parce que nangu la nangu moo ko yeggal fii tey doomam ji yegg fii nii ndax déggaloon na kii kiyam borom këram ndax koo xam ne si ni dafay taw mu jël benn sàkket daal di koy daal ko koy jox mm. mu téye ko mu fàtte ko fa <laughs> muy taw ci kawam di taw di taw di taw di taw di taw di taw di taw di taw ba euh, kii maam maam am maam am maam kii maam maam maam maam Mor Anta Sali mm-hmm. xalaat ni soxna si mu ngi ko jàppaloon ab sàkket fàtte ko fa imagine loolu est-ce que loolu loolu loolu ñun amate na fii nangu nangu jël na ci ru bañ voilà moo tax tey jii nag doomam ji gis nga suñu borom boo mm. déggalee sa sa sa sa sa sëriñ rek mm. sa borom kër rek mm. mën nga jur ku nekk ndax jigéen moom mooy màng sinu yàlla mm-hmm. mooy indi mm-hmm. mooy indi koo xam ne sii nii mm-hmm. imaam jigéen a koy jur Eh, nitu diine hmm. jigéen no koy jur hmm. manam moy mang suñu yalla dal kon yaakar na ne bo deggele sa borom rek hmm. wallahi eh, di nga di nga toll fo xamne ne si ni ah. sa dom dañ koy simil ay dalam eh, ndax señ Tuubaa bi tay ji ni lan mo waral liyam nangu gu nangu allah soxna Kumba nga indi amna solo yaakar na sidina amna ci wal soxna bint ki soxna ndey amna ci wal waye telespectateur yi tim amna ci wal nak li nga wax nak li nga indi dafa am solo mom danaka moom la alaaji si alaaji moom lañ doon waxtaan ak alaaji waajtaayu màggal ak lan moo waral boo ñëwee màggal nag nga war a doxee yaakaar naa ne loolu alaaji yaatal na ci lu bëree bëri xanaa dañ ci eh, bàyyi ki nga xam ne moom mooy suma suma mm-hmm. <laughs> suma am nekk suma càmmoñ mm-hmm. moom mu indi ci li nga xam ne aussi mooy xalaat waaye en tout cas daal li nga xam mooy màggal moom mm-hmm. eh, maam as mi jàkkaarloo ñun xam ne bu baax a baax li nga xam ne nii moom mooy wareefu màggal màggal dafa nekk loo xam ne comme ni ñu cant rek li ci pour mu gàttal sëñ bi dafa woon ne cant lemm ak cant nag dafay ànd ak xam ne moom mooy euh, euh, digle yi nga xam ne moom lañ ca digle nga doxalee ko loolu daal bokk na ci li nga xam pour mu gàtt loolu bokk na ci li nga xam képp ku fi ñëw mm-hmm. noonu nga war a doxee mm-hmm. waaye sama jëwriñ mm-hmm. ana loo xalaat ci li nga xam ne ni moom mooy teemu soxna Kumba bi euh, d' abord damay damay dama koy jaajëfal bu baax soxna Kumba di la siyaaraat bu baax a baax comme ni nga ko waxee <coughs> cant ak màggal gi comportement la laaj ban comportement la ci ab murit war a amee ak ban comportement la murit war a indi ci màggal gi d'abord li ñuy njëkk def mooy dañoo war a ñëw adapté wu ak philosophie bi nga xam ne moom la Touba di dundee parce que nit ku nekk am nga nanga nga mel mhm. te ku nekk ni nga mel da nga ko war a bàyyi sa kër indi li Serigne Touba soxla bi Touba dal yaru mm. teey mm. mbaax mm. silvise sànq yaa ngi koy wax dama naan la ma lay tooñ rek naan la naan màggal gi sax solo sol lu rafet da cee da bokk ndax soo indee ay berne comme ni ko murit bi defee sànq nga sol loo xam ne dafa xaw a xaye di wala mu xaw a tilim nit ñi dinañ la seexlu ba duñu mën a lekk da ngay yànj da ngay mel ni nga war a mel da ngay murite da ngay la civilisation d'abord da ngay da ngay civilisé bokk na ci te loolu day day tax nit ñi nga xam ne bu ñu la gisee dañ lay ñime parce que am na nooyu xam ne soo soo ni melee mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ñime gi day des dëgg la waaw man daal loolu laay am loo xam ne dama ko ci sànni jëm la allah macha allah xanaa mu daal di <laughs> mu sànni ci ay ay kàddoom rek ndax nekk na loo xam ne nii comme ni nga ko waxee rek uh-huh. civilisation bokk na ci mm-hmm. waaye bokk na ci li nga xam ne doxal doxalin bi nga xam ne moom la ñu war a doxalin rek ñun ñëpp mu war ñu mooy que ñu doon ay taalibe parce que Touba moom boo fi xas ñëw rek yaakaar naa ne euh, yaa ngi ci biir da ngaa war a doxi doxinu taalibe soxna Ndeye yow yëkk <laughs> ni ko waxee. mën naa ni wax ngeen lépp sax. Mhm. Euh, Touba moom boo fi ñëw da ngay xam li la tax a yëkkati. xam ni mhm. dëkk la boo xamante ni dëkk bu sell la. Mhm. te it jaamu yàlla moo ñu fi indi. ñaan moo ñu fi indi. ndax borom màggal gi dafa daj lu metti ba suñu boxam fayee ko lii. tey mën naa ne leneen waruñu fi yëkkati. lépp loo xamante ni moo ñu fi yëkkati daal dafay war di saxoo ak ni ko borom dëkk bi bëggee waaye itam ni mu ko déglee. bu ñu delloo suñu fa ñu dëkk incha mu nekk ay njax ñu yëg demoon nañ màggal. waaw ñu yëg bi demoon nañ ñu màggal ñëpp daal ci amiin amiin amiin loolu bokk na ci li ñuy wax nee nañu boo ñëwee màggal mhm. ren ba déwén mhm. gisoo ci benn changement sa bopp mhm. war nga xam ne na nga màggalee moo des parce que sëñ bi moom yaakaar naa képp ku ñëw cant parce que xam nga cant dafa am solo cant dafa am solo parce que sant yalla mom kep koy sant rek dalay doli kon yaakaar naa képp ku fi ñew li nga xamni moy jang ay xasida li nga ay ay ay ñaan ak ci doxalin bi yep comme ne ko suma suma suma suma natang bi waxe jox ko micro bi ndey fatou euh nim ko waxe sank rek dafa nek lo xamni dafa am solo kon ñun ñep ak ñi nga xamni ñi ngi ci yoon bi di ñew fi nga xamni moy Touba nañu xamne euh, bu ñu ñewé dafa am lo xamni mo ñu war lolu ñu war nak nañu waro ak mom ba bu ñu ñibi ëlëk kenn duñu jéppi ba deewon bu ñu ñew dañuy yakamti ñi nga xamni dañ leen dalal dañuy yakamti ñi dafa am solo waye ñi nga xamante aussi ni ko Alaaj Seck waxee rek ñi nga xam ne ñoo fi nekk aussi ñi leen di fekk si nañuy fexe ba nañ leen téye téye boo xam ne nii ëllëgee ba ñu yàkkamti pour ñëw euh, raisonné leen ci li nga xam ne moom mooy màggal gi mhm. loolu daal bokk na ci li nga xam mooy thème bi ngeen di woon ne yàlla buñ ko doon di waxtaanee mhm. fii la des parce que nekk na loo xam ne ni kumba yaatu na lool lool parce que ay njëriñ a ngi ci biir mhm. waxtaan bi ay njëriñ a ngi ci biir waaye bu ko defee mhm. dañu koy daal di euh, euh, gàttal rek mhm. euh, daal di dugg ci li nga xam ne moom mooy divers bi suma sëriñ am na lu mu ñu indil ci li nga xam mooy divers ñi daal di yaatal balaa soxna soxna ndey di indi ci li nga xam ne moom mooy xëy na ci ay nataal ci sëñ bi waaw biographie sëñ bi ñu bàyyi ko après ñu mujj divers jox ko jox ko mu daal di dikk ci li nga xam ne voilà téléspectateurs yi ñu ngi leen di gën a euh, jox loxo rek mhm. ak ziar gu baax bu yaatu ñu bàyyi Ndeye Fatou mu daal di dugg ci li nga xam mooy biographie ah, sëriñ bi voilà Abdou comme ni nga ko waxee mhm. euh, wax ci sëñ bi moom mën naa ne bu ñu doon wax fii ba suba sax du tax mu mhm. jeex euh, waaye nag dañ koy daal di rek résumé ngir <laughs> baaxee ko suñu mbokk taalibe yi voilà euh, Cheikh Ahmadou ba Khadimou Rassoul ñu gën ko xam mi ngi gane si àdduna atub 1953 ca Mbacke mhm. génn àdduna la 19 juillet 1987 ca Diourbel waajuram bu góor ñu gënoon ko xam ci Mame Mor Anta Sali mhm. waajuram bu jigéen ñu gën ko xam ci soxna Mame Diarra Bousso mhm. euh, moom nag ñëw ci njaboot gi ka mu taawloo mooy Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacke teg ci Serigne Abdou Khader Mbacke teg ci tamit euh, Serigne Abdou Lahad Mbacke tekki sëriñ Mouhamadou Fallilou Mbacke daal di catloo sëriñ Saliou Mbacke euh, moom nag ba mu amee juróom-ñaari at euh, ci la ko baayam daal di dénk nijaayam muy euh, Thierno Mbousobé ngir mu jàng ci moom alxuraan Thierno Mbousobé nag ci la ko daal di jël dénkaat ko nijaayu yaayam muy sëriñ Tafsir Mbacke ngir mu yeggale foofu alxuraanam gannaaw ba sëriñ Tafsir Mbacke nag génnee àdduna Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul mm-hmm. ci la daal di rejoindre li nga xamante ne mooy daaray baayam daal di fa euh, daaray bu góor mm. ngir yeggale fa njàngam mm-hmm. waaye tamit euh, jàppale ko ci ndongo yi nga xamante ne fa la ñu nekkoon fa la mm. nekk ba wàccee alxuraan waaye tamit bind fa ay téere yu bari en 1989 ci la daal di jógee Fata ngir euh, dem ci benn village daal di koy fonde muy Mbàkke Kayoor foofu la nekk ñetti at 1980 ba 1983 Cheikh Ahmadou Bamba fa la des Kayoor nekk fa ñaari at ci la daal di décider nag euh, daal di jàppale ñi nga xamante ni ñooy taalibe euh, jàngal leen alxuraan mhm. ci noonu nag ci la xam ne ni kii di xamuy prophète euh, Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam daf ko daal di feeñu ba mu ko feeñoo nag daf ko xamal ni que moom dafa war a ñi nga xamante ni ñooy ndongoy def ci ñoom alxuraan mhm. ci noonu nag la leen daal di woo xamal leen ni que yonent bi feeñu na ko waaye mhm. képp koo xamante ni bëgg nga jàng alxuraan téere yi bari na waaye itam ñiy jàngale baax yi nañ mën dem jàng ko feneen waaye képp koo xamante ni tamit bëgg nga jàng axwaan waaye jege sa borom mën nga mm. des ci moom mm. ci ñoon na am na ñoo xamante ni décidé nañ ñu dem feneen waaye ña ci ëpp sens dañoo des ak sëriñ bi trente neuf personnes lañ ñuy fanweeri nit ak juróom ñeent ñoom ñooñu nag ñoo des ak sëñ bi ci noonu nag ci la daal di créé li nga xamante ni mooy euh, muridi mm-hmm. muridulaahi mm-hmm. muy yoon wa jëm fa yàlla uh-huh. mm-hmm. ci noonu nag ci la daal di fondé dëkk bu sell bi ñu nekk tey muy euh, Touba en 1988 mu nekkoon dëkk boo xamante ne nag bu isolé la woon bu soxi woon dëkk boo xamante ne bi ay ci fooxe la nekkoon nekkoon ci forêt Mbafor fa la nekk juróom-ñaari at en 1989 ci la daal di constaté que voilà gouverneur bu euh, français yi ci la ñu ci ndigalu Clément Thomas ci lañ constaté que seex bi euh, ñu bëri ñu ngi koy fekk fii ci Touba. mu daal di leen di déranger ci noonu nag di lañ ko bindee ay lettres yu bëri ngir xamal ko ni ñi nga xamante ni ñu ngi ñëw ci moom di wut ay ñaan ku ci ñëw na leen delloo ci këram. seex bi nag nanguwu leen a tontu ci loolu benn yoon ci lañ décidé di ko def ay voilà di ko jéem a di ko jéem a teg ay affaire yoo xamante yu xaw a metti la ba tey voilà mm-hmm. mais ba tey nanguwu leen ci mm-hmm. euh, tontu mm-hmm.

candax mooy mm. indi bi ca candax mm-hmm.

gannaaw nag bu ñu jéemee ba sonn le 27 le 21 septembre 1995 ci la Serigne Touba ci lañ ko daal di embarqué foofee ca voilà ca Gabon comme ni ma koy léegi nekk na fa juróom-ñaari at juróom juróomi at yi mu ngi ko nekkee ca Mayumba. Hmm. ñaari at yi mu ngi ko nekkee ca Lambe Yene Lambe Rene voilà foofu nag. fa la toog daal di fay bind yi tamit yenn ci ay téex yi nga xamante ni tey jii taalibe ñu bëri ñu ngi koy fësal surtout ci màggal gi mm-hmm. le 11 novembre 1902 ca lañ ko daal di embarqué foofee ci lañ ko daldi di ci gal ngir ci ko Dakar ndax jëm nañ ba sonu mënu ci ñoom daa mhm. mu def nak euh, fukki fan nak juwom ci yoon wi gëna bu mu ñëwé nak euh, talibem ñu bari daldi di koy gàttandu mhm. momit mu sol dalam séti ñen ci ci ay euh, talibem waye ba tay neexu li nga xamanteni moy français yi ci lañ décidé yi tamit ngir yobbu ko fenen Mauritanie mhm. en 1904 ci lañ ko yobbu ci Sarara Cheikh Ahmadou Bamba afimu kenige gis daal di fësalaat ni gis na ki nga xamanteni moy Sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam te tamit jox uh, mhm. al wirdul <laughs> ma voilà par rapport uh, kat le 26 uh, avril 1907 fa la ki nga xamanteni voilà ci la ko français yi daal di autorisé njeex mu dellu si waat euh, Dakar ci la daal di ñëwee ñu jox ko benn euh, kër ci Thiéyène foofu la nekk ak ay euh, taalibeem waaye it dañ leen limité woon ba ci nga xamante ne ñoom la doon dalal dañ leen daal di woon limité mhm. armée français nag ci lañ ko daal di autoriser ngir mu dellu foofee ca Bawal mhm.

ñoom xam nañu que chef bi bëggul woon daraay geex hmm. ci lañ commencé nag di collaborer ak ak moom hmm. ngir rek lépp loo xamante ni wàllu guerre la ba gis nañ ci que def na ci voilà lu ama am solo Cheikh Ahmadou Bamba ñu nga xamal ni génn na àdduna mardi 19 euh, euh, ci noonu nag lendemain bi ci lañ ko daal di tekki oto denc ko ci jumaa ju sell ji nga xamante ne moo nekk suñu ginnaaw hmm. mais laata boobu nag woote na ngeex ñu koy santalee yàlla ci ba ba mu delsee fi nga hmm. xamante ni mooy euh, Touba hmm. mu nekkoon yemoog le 18 safar comme bis bi ñu ngi koy waajalee ci la xamal ne nag bés bi saa bu ñëwaatee rek nañ koy koy feeteel di ko màggale suñu boxoom di ko santalee suñu boxoom waaye lépp loo xamante ni tamit comme ni ñu ko waxee sànq gan yi lu ci waax ci wàllu lekk ak lépp rek képp koo xamante ni fekk si nañ la na nga ko bu baax a baax ndax dafa di loo xamante ni lépp lu ci waay def rek moom moo la koy fayal boppam. Mm, macha allah du mën a yegg bi ngeen mais xam naa dañ koy résumé rek incha allah nañ fi dalal ñeneen ñoo xamante ni dinañ ñëw gën koo yaatal. exactement dinañ ci ànd ak sax ñi nga xam ay ay expert lañ ci li nga xam ne nii moom mooy euh, euh, mooy euh, ci yoonu ci nga xam ne mooy juddu sëñ sëñ bi mm. ak li nga xam ne moom la jot a dund Seydina euh, ndax sëñ Touba euh, nekk nekk na koo xam ne ni jàngalekat la parce que boo déggee ci histoire am fi mu jógee fi mu jaar ba fi mu yëg si loolu képp koo xam ne ni danga doon doomu aadama rek euh, war di gëstu xam-xam war ngaa jàngee ci sëñ Touba Seydina. dëgg la maa ngi maa ngi koy jaajëfal bu baax. Mm. soxna Kumba moom daal li ma wax rek soxna mm. Ndeye. Mm. Euh, sant wi rek ma ci xaw a jaaxal waaye jàmbaar la lool <laughs> euh, bu ko defee ci li mu def euh, biographie bi mu def ci Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba mhm. dama dama ci am benn rek lu ma ci gën a leeral mhm. muy génn génnuk àdduna gi en 1927 mhm. caatam aussi di Serigne Modou Mourtada xam naa li mu li mu njëkk làqu Serigne Saliou moo tax mu koy xaw a jaawal ñu koy jaawal waaw ñëpp dañoo foog ne Serigne Saliou mooy caat bi boo xoolee Serigne Touba lu mu def. Mm-hmm. ak lu muy wax. Mm-hmm. dara du ci njariñu bopam mom rek. déedéet déedéet. xam nga ki nga xam day wote waxut kaay leen ma ñow leen. Mm-hmm. waxut kaay leen jariñ ma. kaay leen ma jariñ leen. ma jariñ leen kooku yaakaar naa ne mat lu mu doon. deug la Ahmadou. il a fait tout ce trajet juste pour sauver l'islam. deug la. damay damay déglu damay dama dama mësa a dégg ben benn déclaration de Cheikh Béthio. il a dit que Serigne Touba. a sauvé l'islam. deug la. Serigne Touba a sauvé l'islam il a été très clair ci ci ci ci kàddu yooyu maa ngi tuub sax ci tubaab yi mais ni mu ko waxee rek laa ko ah. bëggoon waxee Serigne ah. Touba a sauvé hmm. te soo xoolee lislaam ak mbër yi ci mës a jaar ak ñi ci mës a nekk ñëpp mu ne Serigne Touba a sauvé l'islam kon man dama ci dama ci dama ciy pëttaxlu rek di wax ni mooy jëwriñu l'islam <laughs> dëgg la dëgg la mooy jëwriñu l'islam ndax ni mu mel ci Seydouna Muhammad ndax ni mu mel ci diine hmm. ndax ni mu ni mu taxawalee yàlla bi taxawal jafe hmm. parce que wax na sànq bureau ba ca Ndar xam bureau ba ca ndar ya ca xew. waaw maa la ko wër. yëf yi. Mm-hmm. xam nga wolof dane mm-hmm. li mu wax ba dem. Mm-hmm. ku ko sa baay waxoon dem. dem waaw. te ñun ñëpp nag suñuy baay ngi fi suñuy baay buñ fi newuti suñuy maam ngi fi la mu wax ba dem daal ku ko waxoon dem. dem moo nu dimbali. moo ñu dimbali tey. woo ñu nag ci ak cant. te ñu dégg ci jàngale yëpp ne jaamu yàlla yëpp ak cant moo ci féete kaw. moo ci gën a féete Rafal da doon wax ne ah doom ku bëgg dabe da ngay def ay ndab ndax dabe ndab. dabe ndab ndeysaan. te màggal gi Serigne Touba lim ci woote lépp luñ ci defaat leneen rek. rafetal lay doon rafetal waaye lépp ay bernde la la. màggal gi ba kaay leen sant le ma yàlla mhm. ci ginaar ba ci gillem dëgg la bul def ginaar ba xeeb ko déedéet waaye it bul def gillem ba naw ko kon lépp génnul génnul ay bernde ay bernde lépp ay xewal Serigne Touba dimbali ñu mhm. sagal ñu mm-hmm. may may seetaan kérok ci tiktok ben mag ne yowmal khiyam de cey bu Serigne Touba yéexee ñew <laughs> mom lolu moko jaxal cey bu Serigne Touba yéexee ñew question la waaw dégg taal fan la ñu jëm parce que parce que quoi qu'on puisse dire xam nañ nit eh. mënul jëf jëf yu ko dugal aljan nit yermande suñu borom parce que nee yowmal khiyam mm-hmm. yalla da lay rus mm-hmm. wala nga and ak ku nu rus wala nga jëf jëf jo xam day tax gaay la la te ñun na xam nañ ne Serigne Touba rek la yàlla mën a ruse dëgg ngi noonu. jëfunu ko. waaw sunuy nday jëfunu ko. dëgg la te ki nga xam ne jébbalu ci moom. Hmm. nee na ba ngay jébbalu ci nga am aljana Serigne Touba kon woowuñu ci aljana ci ngërëmal yàlla la nu woo dëgg la kullu murudi bi yaroosu yasu wa innaha wa aqrum bahrum nee na ba ngay jébbalu hmm. ba sa tànk yi di pëndu tànk yi ba muy ba muy pëndu tànk yi ba muy faxasu rek hmm. ci nga am aljana kon kooku jox nañu aljana mu ngi noonu loolu moo gën a jafe maa ngi tuub bu baax déedéet déedéet maa ngi tuub xam naa ne euh, dangaa da ngaa dugg da xuus ci li nga xam ne rek moom mooy euh, ci ci ci ci ci ci ci xol bi mm-hmm. parce que lu nekk rek dafa am dafa am wax yu mm-hmm. bu ñu waxee wax yu mooy ci wax yu ci biir la mm-hmm. euh, te Serigne Touba comme li nga ci wax rek waxtaanee ko mënoo ko waxtaanee benn plateau waaye comme xam nga waxtu bi dafa xaw a xat waaw te matinal bi li ci wàcc ci ay ay ay ay li ci wax wàcc ci li nga xam ne ni moom mooy ay thème ñu war ko waxtaanee daa bëri mhm. waaye nag dañ ciy junj tuuti rek mhm. bu ko defee beneen plateau bi nga xam ne nii eh, dinañ ko defaat ci beneen jour yi lay doon ñu lay doon mhm. maa ngi tuub sax uh-huh. ndax eh, bu ñu bu ñu bëggee résumé lépp Serigne Touba daal njariñ la lu àndut ak lor mu ngi noonu jeex na njëriñ la daal loo xam ne àndut ak lor ak benn lor waaye waaye danoo amul fit waaw dañu koo mayul ñuy wax ci Serigne Touba <laughs> ci lu mel ni résumé te tudd ñu ci Cheikh Ibrahima Fall Ibrahima Fall ndax lu jiñ rek mooy njaag mooy waaw moo ko feeñal moo wone Bamba gaa yi dañu naan Cheikh Serigne Bamba seexal Cheikh Ibra waaye ñenn ñi dañ ne Cheikh Ibra seexal Ahmadou Bamba ndax da fekk gaa ñi di bokk ak moom ab taal di jaaru bokk ak moom ak bool di lekk mu daal di ko fay dinde ne leen Ahmadou kenn la te kon bu ñuy bu ñuy wax Daba yaa seena bu Njaay ibnu yaa seena bu Njaay toxorong ba mbaan gi moo waral coow li màggal gi màggal gi yëpp Cheikh Ibra nee nañ suñu woon ak Cheikh Rafal Bamba réer day réer ñi ñibbi waaw mu ngi noonu ndax dëgg sëñ Bamba ji waaw sëñ Cheikh Ibrahima Fall Fall mooy ñaari jëmm kenn Serigne Bamba ak Cheikh Ibra kenn daa munta dem daa di bàyyi mu ngi noonu sama Serigne mu ngi noonu sama frère eh, yaxtaa yaakaar naa waxtaan bi moom li naan lu duuf ci nag bi xii ci lii waaye dañuy dem ci li nga uh-huh. waaw bu ko defee eh, moom eh, li nga xam ne ni moom lañ bëggoon waxtaan ak yow rek moom mooy divers divers nag bu ñu ko waxee mooy li nga xam ne ni ay xew-xew yoo xam ne ni xëy na xew na ci ci ci ci jamono ñu xew ci li nga xam mooy journée bi mm. ñu daal di ci indi ay ay ay ay ay ay lecture yoo xam ne nii ak ay solution yoo xam ne xëy na ñi nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci jànge waaye ñi nga xam ne aussi bëgg na ñëw bëgg na ñëw bëgg na ñëw xam ñu daal di xam li nga xam ne moom mooy xew la ko bu defee yow la nga loon bu ko defee ci divers damay nuyuwaat bu baax les très chers téléspectateurs bu xibaar 221. Mm-hmm. ak mm-hmm. Euh, téléspectateur bu Max TV. ñu ngi am mbégte contentement. moom mm-hmm. ni ma koy waxee rek di janoo ak yéen. waaw euh, jëmm ju jëmm ju xeebu ji rek mooy janoo ak yéen à chaque fois di leen jox li ngeen xam ne moom ngeen bëgg. li ngeen yittewoo rek lañ leen daal di jox. Euh, bu ñu xoolee ci li nga xam ne moom moom la ñuy indi tey. lenn rek la. parce que ñu ngi ci mm-hmm. màggal. deux jours avant màggal. nga xam ne bu bëgg a jugee jannatu rek dugg biir Touba. Mm-hmm. problème la taxi sax mënoo koo am parce que dañ naan la jumaa ji dafa xat. te ki nga xam ne boo xoolee ba muy nekk fa muy nekk di julli. bu waxee asalaamaaleykum wala bu ñaanee sax du gis ku ne amin. tey dëkkam bi lépp fees dell. Mm-hmm. liggéey bu yàlla nangu la. dëgg la. liggéey bu yàlla nangu la. boo xoolee jumaa jaa ngi fees dell. dell li wër jumaa ji. Euh, li gën a neex ci yëf yi. Mhm. mooy national et international. ñëpp mhm, dañ koy feete si. dëgg la ci avis ñi nga xam ne ñoo def vol spécial pour jóge bitim réew ñëw sant ci Serigne Touba. ñëw fekk fi Sénégal ñun ñi nga xam ne ñu du nangu kenn ëpp lañ ci yëfi mhm. fekk ci waa Touba ñu nekk ci affaire yi nekk loo xam ne riir la jumaa ji foo dem mu dëkk. dinañ dem légui won len li nga xamné moy mo mo moo ci mo ci pentum seigne ba mi waaw inshallah dinañ dem won len ko dinañ def aussi découvrir jumaa ji ak liko wër inshallah allah dinañ dugg ci marché yi pour won gaay yi hmm. deux jours avant magal Touba fi xew waaw ah, lan moy xew di hmm. nañ ko nañ ko suivre sur Xibaar 221 sur Max TV hmm. loolu yëpp inshallah gaay gars dinañ ko dinañ ko am ak yéen bu soobee yalla merci mon frère ci li nga xamné ne ni moom nga wax rek moy walu juntuwaay pour ñew fi nga xamné moy touba euh des fois nak ñi dañuy jaawale parce que buñ ne sëñ bi dañuy santalé ci côté li nga xam ne ni moom mooy màggal euh, te li nga xam mooy transport bi euh, man dafa affaire dafa xawul jaaxal parce que bu ñu ne dañ dem santale ji nga xam ne mooy Serigne Touba xanaa borom borom chauffeur yi ak ñi nga xam ne mooy transporteur xanaa ñoom ñu ci. foofu tamit dañ ci dañ ciy indi leeral. parce que il faut ñu def ci des analyses. Hmm. bu fekkee gasoil yokkuwul. essence yokkuwul. yow chauffeur bi nga nekk murit wala ngay tiijaan wala loo doon. xaadir wala laayeen wala canaba wala taalibe baay. ci mu di doon rek ah? nga nekk jullit rek en un mot waaw ngay dem Touba. Hmm. war ci dimbali. parce que ku nekk ci sa ci li nga yor ci nga mën a dimbali ay jàmm. waaw li nga attan ngay yokk paas yi. loolu man dama jàpp ne rafetu ci ah. sama yëf parce que mbokk ak ñun am nañ ay ay papaay chauffeur. Hmm. am nañ ay xaritu chauffeur. Hmm. am nañ ay mbokki chauffeur. mais màggal jot na rek. damaa war a damaa war a damaa war a yokk paas yi. c'est pas joli du tout. dëgg la il faut ñu def ci ay ay ay ay ay. ay lecture ay ah, lecture. tout cas xam nga li ma ci gën a jaaxal rek moom mooy day répété wu. parce que chaque année loolu dañ koy jooy mais dañ koy jooy màggal weesoo bu dikkaat même chose dafa mel ni que ñi nga xam ne ñi ñuy wax aussi ñoom dégluwuñu te nag dañoo war a déglu ndax lu war ñu tax ñu war a déglu ñoom dañu bokk ci société bi comme boo bokk ci société bi dafa am loo xam ni yow euh, daf daf laa war waroo sax xaar ñu la koy wax muy jaaykat bi muy borom oto bi ak kum ci mun doon boo pour man booy jógee Touba damaa wax xéewal gi da nga xéewal daa war a yokk daa war da ngaa war a def lépp mu nekk xéewal mais waroo koo teg nit ñi ba ñu am am nit ñi mais pression boo leen teg ci comme par exemple li nga xam ne moom mooy euh, mhm. ko jaayante loolu nag leen ko jaral mooy Serigne Touba mhm. waaye nag yi nga xam ne aussi ñoom ñoo koy yokk ñoom war nañ xoolaat seen bopp euh, foofu mhm. dañuy dañuy dañuy wax juste ñi nga xam ne ñoo yokku passé waaw ñu ñu ñu jéem a jaayante ñoom seen diggante ak Serigne Touba dëgg la parce que lu dul sa wërsëg loo warul am waaw xalaa ku leyal doo ko am. mu ngi noonu. gis nga su fekkee waroo doon milliardaire. waaw di nga dund ba dee doo doon milliardaire. <laughs> su fekkee da ngaa doon milliardaire. buy nooy da nga koy am buy neex da koy am. dëgg la ki nga xam ne nag warta am million. Mm. Mm-hmm, mm-hmm. mën na am. neuf cent mille. waaw mën naa am neuf cent mille. waaye du mooy du yegg mooy ko million. mu ngi noonu bu ko defee soxna Kumba eh, ñu bàyyi la nga daal di dugg ci li nga xam ne moom mooy thème bi eh, joxal Ndeye Fatou micro bi. voilà moom comme li mu wax ci yokk paste yi. Uh-huh. Euh, pour man gouvernement bi moo waroon a wàññee gasoil. sa micro. gasoil bi. Mm-hmm. dañ koo waroon a wàññi. Mm-hmm. ba nga xam ne si ndax nit ki tamit am na euh, am mën-mën. Mm-hmm. pour yóbbu nit ñi. mais bu fekkee da nga da nga yokk gazu essence bi. ba nga xam ne si ni déjà. Euh, boo demee ñoom bu ñuy dem bu ñu yebee. bu ñuy ñëw vide la ñuy ñëwaatee. bu ñuy dem dañuy yàpp mais bu ñu ñëwaat vide vide la ñu ñëwaatee seen oto man pour man euh, xalaat naa ne foofoo tax ñu koy ñu koy kii mais bu fekkoon wàññi nañ gasoil bi mm-hmm. yaakaar naa dinañ ci mën a def xëyoo bu bëri voilà man moom euh, sama jàngat fenn rek laa koy def. Mhm. parce que gis màggal euh, ku nekk fu ne da ngay nit ñi dañuy bàyyantu bàyyeekoo fu ne ci àdduna bi. Mhm. mais booy xool tubaab bi passe avion dañ koy dañ koy wàññi. dañ koy wàññi voilà loo xamante ne daal euh, sénégalais war nañ ci jàng defaat bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax. parce que bu dee yërmande yaakaar naa ne fii fii la fii la fii la a njëkkee ndax seexul xadim ñun la xeexale ji woon. Mhm. mais ci côté ba tey borom oto yi am na ci ñoo xamante ne seen oto bopp la ñu yor. des fois da ngay gis ci tali bi koo xamante ne moom ak kenn rek kay nekk si kanam hmm. alors que taliba yi fees dell da nga ne yow da ngay dem Touba da ngay dem liggéeyal ji sa xew Touba euh, pourquoi pas nga jëm même bu dee benn wala ñaar nga jàpp leen ko te yàlla rek ah. defal ko sëñ bi ah. mais duñ ko def oto yi day vide même nga tuub bi gis oto yi day vide ñi ñuy taxaw ci mbedd bi fees dell amuñu oto hmm. mais nii lañ lay xombee bu leen di arrêté sax duñ la faale mu nekk loo xamante war hmm. wax na lu am solo ci ñi ba ñii romb ñi nga xam ne ni ci ñoon ci tali bi te ñu nga ne Touba si mm-hmm. loolu yow noo ko noo ko jàkkatee doy doy na waar <laughs> ndax li tax ma ne doy na waar eh. murit mm-hmm. dañ ci dañoo dañoo dañoo taamu ci moom yaatal waaw ab murit day yaatu day yaatu mm-hmm. xool nag moo yaatu dëgg la dëgg la parce que parce que waa ji biñ ne demal demal rey nag wi indi la ci gën dafa indi xol ba la jël <laughs> bi ñu ne ko demal rey nag beneen nag nga indiwaat la ca gën xol la ca gën a bon xol ba la ah, jël xol moo ci ñaar yooyu mooy musiba la loolu bu baaxee ci nit rek lépp baax na waaye bu bonee lépp mm-hmm. euh, message rek lañ ciy lancé mm-hmm. parce que parce que nit ki moom otom moom mm-hmm. mënoo ci lu bari dëgg la di wax ne ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi kii ñu ngi dem màggal Touba wala ñuy gàmmu ji fu ñu mënti dem te diine woote te diine woote rawatina nag màggal. voilà koo romb rek yóbbaale ko. Euh, dafa am koo xam ne jëwrin bakka cuun di suma xarit. Mm-hmm. di suma mag. Mm-hmm. dafa mës a dafa mës a contourner di dem. ndaw si arrêté ko. Mm-hmm. mu bañ a arrêté dem ba ci giir mu arriéraat. ne xéewal yi ma yor bay dem. xéewal yi ma yor bay dem Serigne Touba ma ko jox ah, ah. te mënoon na ko koo jox moom xañ ma ko te mënoon na ko koo jox moom ci mm. boppam mu yóbbaale ma kon daal ma tuna yóbbaale ko kon yëf yaa ngi noonu kooku kooku am na xel te ñëpp noonu lañ war a eh, doxalee murit noonu la war a doxalee ab jullit rek ab képp kuy jullit rek noonu noonu nga war a doxalee nañ yaatal yëf yi macha allah macha allah ah Kumba. man dagguma la dama ne la comme si fii lañ jëm si te Touba. Uh-huh. ngir yàlla nan daw ndànk. waaw surtout surtout ndax xam nga accident. Uh-huh. Euh, métti na loo xam ne si ni xam nga bitu sëñ Touba moom ñëpp da ci am. jàmm rek uh-huh. nelaw. gis nga lu dul sa wërsëg. doo ko lekk. <laughs> loolu chauffeur yeeg moom loolu chauffeur nan daw <laughs> ndànk ndànk. <laughs> loolu rek laa am lu may wax. sëñ Fallou bi waa ji ñëwee ci moom ne ko Mbacke damaa bëgg nga ñaanal ma. man sëfoor laa damaa bëgg nga ñaanal mu ne ko tàllalal say loxo mu tàllal mm. Mm. mu ne ko daw ndànk dal ndànk dëgg la daw bu baax nag dal bu baax rek kon sëfoor yi nañ ci jàngee leçon baa ngi noonu ay coow daal di daw ndànk ay coow mu ngi noonu jërëjëf Seydina jërëjëf soxna Kumba waaye jërëjëf aussi ko nga xam ne mooy euh, soxna Ndey faatu waaye ki nga xam ne aussi ci moom lañu invité woon muy Alaaji Seck yaakaar naa en tout cas tey yaakaar naa téléspectateur du xibaar 221 ak Max TV euh, jëriñoo nañ li nga xam ne mooy xam-xam bi fi wàcc nee nañ ay ndaw lañ nag waaye nag euh, am na loo xam ne nii yàlla may nañu ko may may nañu ko ñi nga xam ne ñoom lañ bokkoon ak plateau bi voilà bu ko defee ñu daal di euh, wàcc li nga xam ne mooy jataay bi rek ndax li nga xam ne nii moom la leen indiloon ci li nga xam ne mooy actualité Ndeye Fatou wàccal ñi ko euh, thème bi aussi di ngeen ki nga xam ne ni mooy soxna Kumba euh, li mu wax ci li nga xam ne nii noonu la ñu war a comporté woo daanaka moo alaaj Seck ñoom ñoo bokk li ñu indi macha allah euh, ja am am nañ ay jàngat yu ñu ci joxe waaye aussi ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel aussi na am lu ci jànge wala bu dee dañ ci yoon bi di ñëw nañu bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moom lañ fa wàccee Seydina dégg nañ ko moom it ci li nga xam ne moom mooy divers bi macha allah mu nekk lu am solo kenn ku ci nekk daal dafa am loo xam ne moom moo la war sooy ñëw waaye ki nga xam ne aussi ti moom moo fi nekk ñaari kàddu yi mooy kii ñëw ak kii kii ñëw ak ki ñu fekk si kii ñëw na xam li nga xam ne nii loolu moom mooy charte yi waaye ki nga xam ne aussi dafa am charte yoo xam ne nii noonu la ko war noonu la a noonu la war a ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñëw bu ko defee ñun ñëpp ñu égalité égalité mën a yóbbaale yiw ah màggal de man lu ma ci xam mooy kuy ñëw na nga yóbbaale yiw même bu dee da ngaa feesoon del ak i bàkkaar sooy ñibbi war ngaa seen wécc loolu nag dafa am lu lu lu noo koy doxalee mhm. dafa am noo koy doxalee ba loolu nga indaale woon ci ay bàkkaar moo mën a seet mooy nga doxalee li nga xam ne moom méngoo ak nekku sëñ bi bëggee kon bu ko defee loolu lañ indiloon ci li nga xam ni moom mooy xibaaru mooy keppaaru suba si ngeen àndoon ci xibaar 221 ak Max TV bu ko defee ñu jox euh, soxna Ndey mu jox ñu rek kàddu yi Euh, ñi daal di yeewi li nga xam ne moom mooy jotaay bi. voilà Abdou jaajëfal la jaajëfal Seydina ak Kumba. Mhm. ak euh, Seck mi nga xamante ni jaaxoon na fi jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi ñu bàyyi xel ci Xibaar 221 TV ak Maxi TV di leen mhm. jox euh, moom mi nga xam ni moom mooy suñu journaliste yu macha allah su ko defee ñu daal di jox Kumba mu daal di jox mu tàggoo yëkkati sa micro. voilà mhm. maa ngi remercier yéen ñi nga xam ne yéen laa bokkal plateau bi. su naataango benn di Max TV tamit mm-hmm. ñu ngi koy ñu ngi koy remercier mm-hmm. euh, am am contenté ci yow chaque jour rek. moo mm-hmm. jàkkaarloo nañu <laughs> rek macha allah merci beaucoup <laughs> merci. merci beaucoup soxna Koumba merci beaucoup euh, ñi nga xam ne aussi ñoom lañ bokk plateau bi suma suma frère Seydina bu ko defee ñu bàyyi la nga daal di tàggoog euh, xibaar téléspectateur xibaar 221 ak Max TV. mbokki téléspectateur yu xibaar 221 ak Max TV. comme ni ma ko waxee rek ñun suñu suñu jàkkaarloo ak yéen rek dañuy am beneen mbégte boo xam ne day roofu si ñun bu bokkul ak bi nekkoon ci ñun macha allah euh, di am mbégte bu baax a baax bokk ak mm-hmm. ñi nga xam ne Euh, ñu yiw ñu sell ñi ah, plateau bi di leen kontaane te di leen ñaanal jàmm di leen wax bienvenue à Touba merci màggal gaa ngi nii yëf yaa ngi nii fii nag suñu fi ñëwee di kër Serigne Mbacke Madina mm-hmm. te ñu xam ne diggante Serigne Mbacke Madina ak Serigne Touba lenn rek euh, ñu am ki nga xam ne mooy madame la maire de la commune de Thiadiaye muy dal fii ci kër Serigne Mbacke Madina di Adja Binta Faye mm-hmm. euh, ñu ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax a baax nga xam ne bi ñuy ñëw Touba rek mm-hmm. ci auto service am moom moo ñu indi ñu koy ñu koy jaajëfal bu baax a baax Adja Binta Faye di di siyaar ñëpp yow it mm-hmm. ma lay jox sa wàccuwaay bu baax <laughs> di mm-hmm. ci des mm-hmm. euh, ñuy ñu daal di def ndànk ñi nga xam ne nañ fekk si tamit ñu xam ne luy jeex la rek c'est quelque chose ñu ngi bëggee ñëpp di siyaare ñëpp di am mbégte contentement bu baax a baax jërë ngeen jëf Aïcho mu ngi noonu mon frère Seydina siyaar naa la jox la sa wàccuwaay bu baax a baax di kontaan ci yow di di di jaajëfal sama ñaari jigéen sama tim laa tuddee ndax ñoom man ak ñoom Dakar ba tubaa léegi waaye tamit man ak yéen la ba fi nga xam ne ni moom mooy États-Unis wala fi nga xam mooy France loolu mooy suma yéene ak yéen ndax yéen vraiment bokk yéen plateau ça me fait euh, di jaajëfal nag euh, am jaajëfu bi nga xam ne nii dama koy jaajëfal ki nga xam ne moom mooy suñu DG parce que bu ñu waxee directeur général rek euh, dafa am loo xam ne nii moom moom moom moom la yeeyoo tey lim ko yeeyoo nag moom mooy que ni muy doxalee moo tax cant gi ak ngërëm gi ñu ko koy jox waaye balaa may euh, continuer ci ki nga xam ne moom mooy euh, suñu directeur euh, Kouta damay remercier ki nga xam ne mooy suma suma su suñu jëwriñ ji nga xam ne ni moom mooy As bi ñuy cëpp ci guddi yi la commence jàpp ci liggéey bi waaw cëpp ci guddi gi la commencé jàpp ci liggéey bi bàyyiwul dara teg ñi ci condition yu baax ba fi ñu toll nii ba lépp boole ñëw sëñ bi ba sëñ bi fi mu toll nii ñaanal nañu jox ñu li nga xam mooy ndigal nañu acci liggéey leen liggéey boobu nag ci la ñu nekk mais nag damay am jaajëf bu baax baax gi may jaajëfal ki nga xam ne mooy suñu président muy Tambidou ak soxnaam waaye di jaajëfal aussi ñi nga xam ne nii l'infatigable muy suñu technicien bi euh, suñu réalisateur bi di cam di cadreur muy euh, mon frère euh, suñu sëriñ sax laa koy wax muy kii maam Thierno Ibrahima Mbacke ndaamal daaru borom anniversaire bi nga xam ne moo doon la cinq bi tombé woon ak ñaar rakk yi réalisateur bu mag bi ñu ngi lay ziar ñi nga ànd ak aussi di liggéey ci mel ni monteur réalisateur ñu ngi lay jaajëfal parce que gis nañ li nga xam ni moom mooy taxawaay bi ak liggéey bi yombut waaye ñu ngi jéem yàlla mi nga xam ne nag moom moo am euh, euh, kàttanu matale yàlla nañ yàlla matale li nga xam ne mi def mottali ñu parce que matuñu di nuyu ki nga xam ne mooy Serigne Saliou nekk ci aussi beneen beneen côté bi euh, liggéey bi muy liggéey gis nañ ko Serigne Saliou ñu ngi lay remercier bu baax a di la jaajëfal kontaan ci yow góorgóorlu noonu la yàlla baax na li nga xam ne moo ñu fi indi kenn ku ci nekk li ñu fi indi yàlla nañu yokk ëllëg ba ëllëg suñuy ñëw ñu indi suñu oto bopp ndax Sëriñ Tuuba amul yoonu euh, amul euh, aw yoonam amul tànk amul tànku ginnaaw tànk kanam rek la am mhm. kon nag yàlla nañu yàlla yokk ba ëllëg bu ñuy ñëw ñu yëg ba nga xam ne nii dañuy sawar ci ñëw bi mhm. di jaajëfal Assane tamit nga xam ne frère la boo xam ne nii euh, man dama koy dama ko jox cër ndaw la nekk suñu waaye dafa nangu lool macha allah mhm. maa ngi lay remercier nekk un technicien aussi logistique bi yëpp aussi moo ko géré nangu ba pare vraiment am xam-xam kon Assane ñu ngi lay jaajëf bu baax a baax waaye aussi ñi nga xamante moom moo nekk euh, équipe technique bu euh, Max TV amuñu seen fay ndax liggéey bi gis nañu collaboration bi am na njëriñ lool ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax baax waaye di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xibaar 221 xel ak Max TV lii leen leen indiloon ci li nga xam ne mooy Keparu Showbiz tey premier numéro fii ci Touba xanaa di leen jox dox daje ba beneen yoon merci beaucoup téléspectateurs yi